ñooma gis naa euh, la jeune fila là Zeyna la xaw ma nu mu tudd. Jeyna Jeyna. waaw ah. Jeyna ñu revue de presse. ah Balde. xam nga lu mu def. déedéet. am na daal lu journaux yi bind. Jeyna dafay doon génn benn booy xaw ma day rap ma booy ko sant Faal. mooy mooy Bril Bril Bril. Bril Faye daanaka. kër ndaw waa ji la dëkkoon daanaka. moom kan Jeyna. waaw mu yor caabi Jeyna yor caabi. ji naa jël euh, xaar ba guddi jot. Mhm. waa ji di nelaw. mu waa frère boobu nga xam ne ñu moo àndoon ak kii bi ñuy filmer grand bi yor euh, grand Diop. Mhm. grand frère am nu mu tudd. Alpha xawma la sant xawma Ali Balde mhm. Ali ànd ak beneen xaritam. ñëw ñu sàcc ñaari téléphone iPhone Pro Max. waa ji caabi oto Chrysler am xam nga yóbbu ko wa mu wàcc jox ko fareeram bi woowu fareeram bi dem yéen naa ñëwaat tëdd di nelaw waa ji yeewu gis ni sàcc nañ ko te daajuwuñu bunt tojuñu dara waa ji xëy suba ñi ndaw si ni ko man sax sama portable dañ koo sàccaale moom moom jey naa hmm. waa ji dem jëndal ko téléphone mais porté gul woon plainte xam fan nag ko waa ji porté plainte hmm. dafa jékki-jékki di jot ay mënaas jey naa ak frèram boobu hmm. dañoo jël ay tigo puce puce puce tigo mm-hmm. firi def ko ci téléphone mbindaan ma mbindaanu jey naa jey naa ñaari mbindaan laa mais kenn ka la jël téléphone am def ci puce bi commencé ñuy chantage waa ji ci portable waa ji dafa ay vidéo waa ji yu co nekk mm-hmm. ak yeneen i xale yi jigéen mm-hmm. te nañ nañ vidéo yeen na mu demee naka su teggunuwul daal ñu jël vidéo yooyu nag di ko yónnee waa ji di ko ci chantage naan ko soo ñu defalul lii dañuy publier vidéo yi di ko ci chantage di ko ci chantage ba waa ji porté plainte bi waa ji porté plainte nag bi ñu toppee enquête bi Dieyna dañi dañoo sàccaale téléphone mais ñoo ngi gis ni Dieyna mi ngi woote téléphone ci téléphone mm-hmm. utiliser daal mi ngi koy utiliser. bi mu ne dañ koo sàcc bi mu ne ci càcc gi la bokk. Mm-hmm. voilà ci biir ay enquête ñu dem ba cuisé ne ko nii carrément mu daal di avoué ni moom moo def loolu. Hmm? loolu nag am na lu ci nit ñi war a jàngat. Mm-hmm. moo tax samam xel day ñaaw ca la xewoon ba ñu arrêté tuuti xamu la xam naa ba jéenaa ak frère bi mm-hmm. ñoo def lii waa ji mm-hmm. jéenaa ak frère bi ñoo amoon problème ak Diop Iseg li ci def nag da ngay bàyyi nit ñi ñu xalaatal seen bopp. ak yoon foofu ak yoon affaire yi ni naka lay mujje